maaleykum mbokki Ndoumbé asalaamaaleykum uh, mbokki Sénégal uh, ñu ngi tey fii ci marché bu Géoul marché bu Géoul nag tey di bisu altine ñu daan gis uh, bisu altine bu nekk nit ñi dañ daan daje fii ci marché bi di jaayanteeg di jënd. ah li waral tey nag nit ñi ñëwuñ ci marché bi jaayanteeg di jënd dafa am benn règle bu ñu jot boo xam ne dañu ne képp koo xam ne yaa ngi nekk ci gox na nga fa toog. bépp marché bu nekk fi di ci ci na nga arrêté ba wala la waral tay jii marché géewul tay ñu tejj ko kenn jaayul kenn jëndul nit ñi ku ñëw dana la génne nga dem mo waral tay jii marché bi melni gis ngeen dëkk bi lepp ngi ne selaw mi ngi melni tay la dimanche liko waral nak moy feewar bi nga xamné mi ngi ci réew mi di lëmbé aduna bi ñu jël suñu matuwaay ñi nga xamné wa ngumba pour fexé feer bi baña bañ ñoo gagné baña dugg fi ci dëkk bi looloo waral tay marché bi mu wéti gis ngeen ko gis ngeen mbedd yi nga xamné yépp tay altiné altine yi ngeen gis yépp tay ji nit ñi lañ fi daan lal di jaay ñebbe ñi di jaay ay ki ñi jënd ka jaay képp ko xamné daan ko jóge ci dëkk ali tay di ko fi gis nga auto yi ñëw ñu saret yi gisoo benn saret bo xamné presque gaari nañ ko ay benn benn saret rek gis ñu fi dëkk ñu fi dugg pause mbaay yi daan fi ñëw andi client yi daanaka benn pause ñëw tay comme ñu gisandoo ko ñu xamné fever bi du caaxaan fever bi ku nekk war nga ci jóg ndax jéggina dayo ba nga xamné ne jaaxal na askan lii ñi ngi ñaan yalla yàlla mi nga xam ne moo ko teg yal na ko yàlla gaaw a teggi kon nga ànd ak Géoul TV ngeen xool uh, lan moo xew tey ji biir marché ci Ngoumba. kon ni ngeen ko gisee tey jii gis ngeen marché bi marché bi amul benn maire boo xam ne tey lal nga fi tey kon yaakaar naa ne ñi fa war a nekk di jaay ak a jënd ñëpp jëlee nañ ci ko marché marché baa ngi nii gis ngeen ni mu weesee mi ngi mel ne tey dimanche benn jaaykat nekk comme ngeen war a xam ne feebar bi dootul caaxaan feebar bi ñun ñëpp war nañ ci mën a jàpp nga gis par benn benn ci marché bi ñeneen ñoo xam ne daanaka maire bi nekkoon ñëpp laale nañu marché daal kenn néew nga xam ne mi ngi jaay ak jënd kon ñu jàll ko ci kanam ñu dajeek euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci bi xool tey jii lan moo waral euh, li nga xam ne moom la marché bi doxee ñu gis par benn benn rek ngeen di gis bi leen kenn koo xam ne tey lal na ci marché bi ah ñu gis euh, bitig bi mais xam naa ne waaw salaamaaleykum na ngeen def sëñ bi ñu ngi leen di ziar naka yi tey sant bu baax la ah sëñ bi tey ñu ñëwoon ci marché Wagyu TV ñu gis tey di gis altine ñu gis euh, marché bi daan bëri ay nit ñëpp di jënd ak jaay tey ñu gis euh, marché bi kenn lalul lan moo waral ñàkk bañ a marché bi tey jege ko jege ko problematics ndax ndax ndax ñi dugg fii di jënd yaa ngi leen di wax bu ñuy raxas seen loxo di jël matuwaay yoo xam ne dana xarange ci feebar bi waaw ñëpp ñu leen wax waaw xam ne lan ngay digal sa morom commerçant yi nga xam ne dañoo ubbi comme yow ñu tey jii. yëpp tamit ñuy defar ba set rek seen i xasum yëpp daal defar daal. waaw waaw kon jërëjëf dee ngeen kooku li mu wax nee na nañuy raxas loxo yi clients yi ñëw ci ñoom këpp kuy xam da ngay jënd kii rek nga raxas say loxo kon ñi ngi dellu di laaj ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi. Ah, aja Adja ñu gis leen ngeen doon nekk ci marché bi jaay di altine ngeen lal ci marché bi tey ñu gis yéen ñëpp sa morom yi naa tey gisuñu kenn muy lal ci marché bi lan moo waral tey ñàkk a lal xanaa rek ànd ak ñoom ci liggéey bi rek mm. ci saytu maanaam li wax mm. comme moom jàngoro boo xam ne ko bokk mm. te taw rek koy dindi ah def rek ndax ñun la ñu àndal te lu rek lañ ci dindi moo tax nañu di dafa galaas suñuy jël denc ba suba suba suba liggéey rek ndax set mooy fi ñu ma fiy jëndal fi hmm. soo demee gannaaw orgeo lañ wax nañ yor suñu orgeo yor suñu hmm. ñu raxasu bala ñoo lekk saa yu nee jéem a toog nag te bañ a dajalaat ci mbooloo bi liggéey comme ñoom ànd nañoo ñi nga xam ne dogal gi ànd nañ ci ndax nee nañu euh, yoon yemul ci benn tey amul na suba am na kon moom mi ngi nii toj galaasam di fas yéene denc ay jënam ba suba mu dolluwaat dellu ci liggéey kon ñu ngi continuer ak yéen ba xool bi marché bi nan la tëddee tey jii ci altine ji. ba léegi ñoo ngi ci marché bi di jënoog ñi nga xam ne fii lu ma la woon fii lañ daan jaayee jëndee ñebe ka jaay tey ñu gis ne loolu lépp amu fi tey ndax euh, ndigal li ñu jot ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite dëkk bi képp koo xam ne rek euh, doon nga jaay nga jënd arrêté nañ ñëpp kon ngeen gis tey ji altine dafa mel ne dimanche la. kon yaaka naane wa ngumba ndigal gi ñu joxe and nañ ci dégg nañ ko ñu ak suñu yaay ji nga xamne mom dafa melne ndigal li da koy wé mi ngi tok fi dañ bi ubi way dafa jël ay kaara yooyu mat sëkk ñu gis ko mu def maskam sol ay gam ñu ak mom muy suñu yaay jo xamne yaaka naane naa ne na ndigal li nga xamne wa rew mi ñu koy wax yaay boy nuñu nañ la ah, ñu gis tay ji li nga xamne mom say gam sol sa masque lan mo waral nga def euh, yi nga def tay ji kaaraange doomu

war ngaa def sa kéem lay kàttan ba doon aar jàngoro ba du lan ngay wax sa moromi jigéen ñi nga xam ne ci kër gi yoru yoru wàllu set mi. kër gi itam kenn ku ci nekk war ngaa jël say matukaay matukaay yi mooy aar yi dem fu dem ci sa saabu olof nga raxas say loxo ba mu set. door a mën set daal moo ñuy dindi ñu ngi ñaax nag boole ñu julli boole ku lu ñaax nga jël say matukaay ci set ak setal waaw ah, jërëjëf nga dégg li sama yaay wax mu ne set moo ñuy aar mooy aar mépp jullit kon moom li ñuy wax mi ngi koy mi ngi kon ñu ngi continuer di ne ci marché bi mooy place bi nga xam ne moom lañ doon jaayee ñebbe tey kenn nekku fi ñëpp dem nañu. fii ci Ngoumba ci marché bi fii di marché Ndiobentaay ñu gis ne marché bi tey danaan fees dell par altine ñu gis tey jii lépp koo xam ne rek daanaka ne gis ñu fa na kenn teewu jaay ñu gis euh, nit par benn benn ñu dem ak a ñëw ah, kon yaakaar naa ne euh, li ñu joxe ndigal yi ñu joxe nit ñi ñu ngi koy jëfee ndax euh, daan na fekk nit ñi yi nit ñi dañaan buuxante mu fees dell mais tey kenn nekku fi par benn benn rek nga fi gis. kon yaakaar naa ne feebar bi lu ñu war a mën a xeex la ngumba moom ñu ngi ci xeex seen wàll ñu ngi jëfe li nga xam ne moom lañ leen wax kon tey jii ah képp koo xam ne yaa ngi nekk ci doomu jéew yaa ngi nekk fi doomu gumba war nga mën a jëpp jàpp ci li nga xam ne moom la ñuy joxe ndigal li nga xam ne moom la ñuy wéyale pour mën a jariñ suñu bopp pour ñu mën a euh, sooyee suñu bopp ci feebar bi nga xam ne moo nekk ci réew mi di lëm ñi nga daje fii taxaw di waxtaan salaamaaleykum sama yaay ah ñi ngi lay nuyu ñu gis tay ji di bisu altine ah, ñu daan gis fi yépp daan bari nit tay ñu gis na tay kenn nekku fi daanaka ñoo jaay ñepp lale nañu lan mo waral tay ah, doxalen bi am fi ci marché bi bi ñuy wax rek nit ñi daw di raxasu banyak a banyak bañ di daw feebar bañ nangu xaalis ku ne sa bopp waaw bañ nangu ndax ku ko def sa rek nga ko defal ñun ñoom dañoo nit ku ñuul nag moom daa xaw a dëgër bopp. comme bu ñuy wax set set boo koy xool jigéen ñi ñoo ñoom ñoo ci ëpp li ñu nga xam moom lañ ko jëfee lan ngay wax jigéen ñi nga ñuy di bale du lukkati di pomp waaw di raxasoo saabu di raxasoo omo di raxas seen njaboot yi loolu daal laaj sama. waaw jërëjëf sama yaay kàddu gi rafet na toog bu set. waaw. Yàkkin ñu ngi leen di ziar ah waa Géoul TV ñoo ci xew-xew bi nga xam ne moo am ci marché bi muy ah, tey di bisu altine ñu gis ne altine bu nekk fii yëpp danaan xumb jaaykat yi daan lal tey ñu gis tey ji altine mu mel ne dimanche lan moo waral tey jooji eh, xew-xew bi am tey ji ah, waaw bi li ko waral mooy léegi feebar bi dañuy mën altine leen di bi passé dañu fi kenn lal baan bàyyi dëkk Kébémer ñëw di lal léegi yëf ëpp doole nit ñi dañu bëgg feebar bi arrêté léegi ñu jox avertissement ni bu kenn laal léegi nag ni ñuy bopp ñëw di laal bu ñu laal suba am ñu nangu seen i bagage gendarmerie yóbbu na ko ñi dëggal bopp ñi dëgg bopp laal ne ñibbi fii loolu rek mooy affaire bi waaw. lan ngay wax ñi nga xam ne ay jaaykat lañ comme yow ci ci ci jamono ji ñu nekk ak feebar bi ñu ne. jaaykat yi fi ñu toll bu ñu nee bàyyi lii bul kenn jaay bu kenn jaay nee nañ ba talaata ngeen ñëw jaay te bàyyi dajaloo bi waaw loolu la ñu wax man kay ñoom ñëpp la sant ndax ndax xam parce que damaa woo démb li ma ko waa marché ni bu kenn xëy jaay ba ma xëy wax naa leen ko léegi ak ñi dëgg bopp yóbbuñ seen bagage ñi nga xam ne nangu loolu ñu ngi toog di jaay feebar bi moom ci ñëpp la ñëpp la conseil ñii di cee baax sax ak seen jaay mi ñëpp toog da cee baax waaw ndax buñ da dox duñ fi xam feebar fu mu féet ah jërëjëf kooku ma doon Baye Dioni mooy moo nga xam ne moo jiite marché bi nekk fii di Ndiobène Taye jërëjëf Baye Dioni. Euh, salaamaaleykum monsieur le maire. tey ñu dugg ci marché bi. ñu gis tey bisu altine. ñu dem ci marché bi gis ne marché bi nañ daan lale ak nañ daan jaayee tey defuñu loolu. ñu daje nit ñi am ñu jot a laaj lan moo waral loolu ñu ne dañoo jot ay ndigal yoo xam ne yéen yéen leen tey bu kenn lal. ñu bëggoon a xam lan moo waral loolu. waaw nah, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ni Géoul mi ngi koy def. loolu xam naa ne mooy may ma njëkkee loolu parce que comme ni ma la ni koy faral di waxee nii par téléphone géwul Art dafa nekk benn vitrine boo xam ni euh, bu kenn jàpp ni waa Géoul doog ñoom ñoo koy seetaan àddina bi yëpp ñoo koy seetaan parce que man am naa ay am di jàmm ak ay xarit yoo xam ni ñu ngi sax nekk bitim ñeneen ñi nekk ci yeneen yi dañ koy seetaan di ñu defal ay suggestion donc loolu liggéey la boo xam ni yéen yéen a ko def ci seen initiative boobu ñu leen ciy sant di leen gërëm. di ñaan aussi mu dem ba gën a yaatu waaw gën a yaatu nekk télé bu gën a moderne mooy gën a bare loolu aussi ñu ci ñaan ñëpp di ci woo ñëpp di ko commencé suñu bopp ñu jàpp ci pour que mbir mi dem ci kanam léegi nag tey ji li ma laaj ni ndigal bi dafa am lu ko jiitu mooy ñëpp xam nañ tey feebar bi tudd Covid demi Covid 19 li muy def ci àddina bi yëpp ba commencé ko def fii ci fii ci Sénégal. moom moo tax ay mesures jóg mesures yi nag benn gën ci kawe bu président de la république euh, bi mu joxee ay directives directives yooyu ñun ñëpp dañu ko war a respecter parce que li nit ñi di xaw a umpale mooy mairie la mairie est un démembrement de l'État donc su état bi jëlee benn ndogal mairie daf ko war a suivre strictement soo leen xoolee altine bi njëkk danoo bàyyi mu jàll pour xool ba xam parce que nit ñi tamit. Euh, marché dafa am lu muy joué ci dëkk bi mooy comme ni ko ñu bëri di waxee Sénégal tollooguñu foo xam ni nit ñi dañuy jël seen ravitaillement yépp denc ko di ci dund nit ñi dañuy dund au jour le jour soo ñëwee rek tëb tëb daal di arrêté marché bi day poser problème moo tax premier marché bi am na ay communes yu arrêté woon mais ñun dama ne woon nan bàyyi xool ba xam feebar bi fan la jëm mais malheureusement dañoo gis ni feebar bi diggante lundi bi ak tey dafay gën a yokku. donc ñu ni baax nañu jël ay mesures ay mesures préventives maanaam fexe ba aaru bien vrai que euh, aaru jafe na si mais en ñu def si li nga xam ni moom moom moo gën looloo tax démb lañu woote ay nit ay nit ñoo xam ni ay kilifa lañ ci ci marché bi wax ak ñoom ni leen daal comme ni ko ñëpp defee euh, nan ko defee noonu maanaam ñu fexe ba luuma bi ñu arrêté ko tey mais terewul nag le marché permanent maanaam ñi daan jaay bés bu nekk loolu kenn tereegu ko day continuer pour que nit ñi mën di di rafetaayoo ñuy rafet lu baax aussi nit ñi nin koo gisee nin ko nin koo jëlee avec philosophie maanaam nangu dogal boobu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi dafa nekk loo xam ni du benn nit rek moom moo koy xeex du mairie bi kese du président de la république wala ay ministre am du waa marché bi kese mais ñun ñëpp la euh, di di nii gars yi observé mesure bi nag mairie bi ci sama kàddu dañ ko rafetlu lool parce que day wane ni géewul ñun ñëpp benn lan ñoo bokk li nu bëgg euh, su dara dalee nit ñëpp la dal muy lu neex muy lu naxari donc loolu moom moo tax ñoom aussi bi leen wooyee ñoom ñëpp ñu rafetlu ko wax dëgg yàlla euh, te doon wax aussi yéen leen si doon déglu ñu ni kon nan ko nan ko doxale noonu loolu daal mooy loolu mooy li nga xam ni moom la ñu moom def ko tey jii nii incha euh, comme yéen yéen a jiite askan wi fii lan nga askan wi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu feebar bi. waaw li ñu leen waxoon uh, ci bële paase rek mooy feebar bi nekk na loo xam ne lu lu lu am la lu am la donc comme am na te ñi ñi nga xam seen xam-xam màcc na jëm ci feebar yu mel nii am na ay digle yu ñu joxe digle yooyu nan ko nan ko respecté nan ko respecté man damay uh, ñaawlu ak di ko condamné nit ñi nga xam dañuy ñëw naan soit feebar bi amul. wala ñuy def loo xam day propager virus bi wala ñu naan ay sunu mag ñu baax ñi eh, ñu ngi fi feebar bi du fi dugg wala feebar du fi def noonu yooyu c'est des faux problèmes sunu mag ñu baax ñi mais ñuy fi bi peste bi ama loolu ñëpp xam nañ ko peste bi muy am Sénégal sunu mag ñu baax ñi ni tudd ñu ngi fi woon mais comme ñoom ñu ngi fi woon peste bi dugg fi buñ fi nekkulee jarati na wax dafa am yoo xam ni jullit du ko wax jullit mën na wakkiirlu ci yàlla. mais wakkirlu ci yalla aussi di ko nit ñi di waxe bokul ak li yalla wax de bokul ak li yonte bi sallallahu alayhi wasallam jangale aussi bala ngay ci yalla da ngay def li nga war def par exemple bo defé li nga war def lepp ba mu mat en tant que nit doomu adama bo paré nak mën nga wakkirlu ci yalla mais so toogee rek dal di bo nan wakkirlu ci yalla nangam nang te defoo ben effort buy wane ni li kat nga bëgg def nga ci li nga war def du mën dem dañuy netal ni yonent bi sallallahu alayhi Wasallam sallam ak Bilal ñu doon voyager ñu dem ba def ben escale euh yonent bi ni Bilal ana ana gelem gi ana gelem mi wala ana gelem mi mu ne ko gelem gi bayina ko muy for ah mun ko ah bu demee nag mun ko no du dem dañuy wakiru ci yalla yonent bi sallallahu alayhi Wasallam ni ko takko ko ba pare takal garab gelem gi ba pare do wakiru ci yalla donc lolu jangale la bu for donc mom motax mesure yi nga xamni wala directive yi nga xam ni seen xam-xam màcc jëm ci wàllu pandémie wax nañ nu ko loolu noonu nañ ko def ba pare doo wakkilu ci yàlla mooy lan mooy d'abord li ci njëkk soo ko tënkee lépp mooy nanu set nanu set suñ setee ba pare am na yoo xam ne c'est naturel chez nous mooy lu mel ne tisooli lu mel ne sëqat war na ko booy li eh, wala ngay sëqat def ko ci mouchoir mouchoir à soo paree nga dugal ko ci poubel wala boo fekkente ni fekk na la foo xam ni amoo ko yoroo ko wala ñëw na bett la ñu ni nga def ko sa sa sa biir conco nga def ko si loolu ay digle la niwo bi ñun ñooy joxe loxo di rek mais lislaam géewul ñun ñëpp ay julli leen lislaam sant nañu joxe loxo lislaam asalaamaaleykum lan wax nan ko waxante loolu moom moo ëpp solo moom xéewal la sax te sax dafa bokk ci liy faj feebar parce que loolu mooy yàlla na nga am jàmm mais ki am jàmm kay amul feebar bi

donc comme ñoom nee lii daal mën na tax nit mucc si ñu li ñuy digal suñu bopp di ko digal ñëpp mooy naan respecter mesure yooyu xam nga bu boobaa bu ñu wakkirloo ci yàlla yàlla mën na def mu mucc ñu ñu ñu mucc si ñun ñëpp euh, li ñuy tëje daal mooy ay kàddu ñaan encore une fois euh, ñaan moom am na doole ñun li ñuy wax rek mooy li ñu gisagum sooy xool euh, télé yi da gis ni feebar bi moom tëna tëna ñëpp feebar boo xam amagul lu koy faj li fi des mooy suñu defee suñu devoiru nit ba pare moo ñu wakkeetu ci yàlla ñaan ko tuub ñaan ko pour que maladie bi mu mu fay ko mu fay ko te nu mu gën a gaawee parce que li ciy dee bëri na trop te ndagam pays yi am doole ñoom ñooy am taux de mortalité bu élevé asamaan ñun ñi nga xam ne amuñu doole amuñu moyen ba pare nañ dëkkee. donc ñu ñaan yàlla suñu borom mu fay feebar bi ba ñëpp mucc si euh, ñëpp mën a delluwaat seen liggéey loolu daal lañ remercier en même temps nag ñeneen ñi nga commencer par vous parce que ni ngeen di information bi yéen ak information parce que xeex bi aussi beaucoup si ñuy joxe information bi ba xam donc ñu leen ci sant leen ci gërëm di sant tamit rajo rajo municipal bu géewul ñoom it ñu ngi ciy def liggéey bu am solo di sant di gërëm mbooleem nit ñi si jàpp ñëpp parce que bëri na bëri na doo mën a lim parce que soo limee day am ñooy fàtte euh, mais am na am na tamit euh, euh, ñoo xam mën nañ leen tudd par exemple tey soo xoolee au delà li mairie bi def ci jënd ay produits am na Mansour Ndiaye gis seen kii mu jox monsieur le maire. ay détergent léegi nii bu xëy suba monsieur Kébé prof SVT joxe na ay ay détergent ñu jox ko étudiants yi parce que geste boobu li tax ñu koy wax mooy ñëpp dañ leen war a toppandoo parce que toppandoo lu baax dara nekku si mais aussi tamit beral cant ak ngërëm Thierno Diaw ak Bounama parce que ñoom ci ñi njëkk a jug taxaw pour di liggéey di def sensibilisation bu am solo ci lan ci lan bokk di defal mention spéciale étudiants yi parce que wax naa leen ko nee naa leen lii la ñuy xaar ci yéen. xaaruma pour ngeen di parce que mais au moyen dañuy éveil de conscience loolu yéen mën ngeen koo def te moom la jóg def ko ci ci ci ci feebar bii ñu leen di si sant di di leen ci donc di aussi population bi ci xam ak ci xamul ci en tout cas di am solo ñun ñëpp taxaw pour xeex feebar bi mu mesures mesures.